politique du diine du tarixa du diine du tarixa yéen waa Pastef yi non dama ne dama ne non non non yéen waa Pastef yi non dafa ndànk dafa leen def naa non c'est important da ngeen war a jàng da ngeen war a jàng ni da ngeen war a jàng ni c'est pour seen intérêt combat politique yéen seen combat politique seen combat politique pour mu baax seen combat politique pour mu baax da ngeen war a jàng benn affaire mooy la relativité àdduna lépp weexul tàll lépp ñuulul kukk képp ku la ni senegal fii dafa am boor boo xam ni dafa am ñu bon am boor boo xam ne dafa am ñu baax waxul dëgg su ma déggee ñaan Ousmane Sonko mu sell mi sell na sellul kooku yàlla moo ko xam mais man li ma seetlu mooy ñi développé seen pays yëpp en Afrique partout dans le monde seetluñu en tout cas sell ni ñu koy woowee ci Afrique ci ci ñu ko gisee ci l'islam Kagame bu fekkee ni seen li ñu koy woowee ci l'islam lañ koy sellul Deng Xiaoping sellul Kikwete sellul John Kufuor sellul mais ñoom ñëpp seen réew yi fan la parce que xawlal yéen seen leader bu leen ko laaj lu ëpp li ñuy laaj li ñu war a laaj ku war a jiite réew xam nga xam nga boo jiitee réew lan lañ lay laaj boo jiite réew xam lan lañ lay laaj ñaari affaire ñetti affaire lañ lay laaj nga am vision nga am vision maanaam yow nga am xalaat ci fii réew mi war a jëm deuxièmement nga bëgg réew mi parce que bëgg réew mi moo tax ngay bàyyi lu bari di bàyyi loolu bari say ñoñ pour mën a àgg fi nga jëm troisièmement nga am xarañteefu loolu nga xalaat nga def ay pexe ba yóbbu fa réew mi c'est tout kenn laaju na nga sell kenn laaju na nga nekk yonent kenn laaju na ngay ngay ngay fanaan aras kenn laaju na ci lenn donc loolu bu leen ko laaj Ousmane Sonko c'est pas important xam lan moo am importance na am vision na bëgg réew mi na am ay pexe pour fa mu bëgg a yóbbu réew bi mu yóbbu ko